tey jullit ñi ñoom ñooy caaxaankat ñooy def bàkkaar ñoo ànd ak seytaane ba pare di yëjj seen diine di ko fooye jullit ñi laa wax ñooy fowee seen diine faaleetuñu bàkkaar faaleetuñu yàlla faaleetuñu diine mooy yàlla léegi ci culture lañ ko dugal nit ki day bëgg a def lu bonam ne culture sénégalais la musique tëgg fecc caaxaan saxaaba yi day yaroon nañ seen bopp ci loolu ñun dañ naan yàlla ñoo tey dañuy sabar dañuy tànn béer dañuy fecc dañuy bon am nañu ñu ñu yaakaar suñuy sëriñ ñoo ñuy ràmm ñun amuñu problème yowmal qiyaam ñun loolu lañu ñu gëm ñun suñu réew suñu réew ngay fekk ñu ñemee def mbon ku nekk ba pare daganal ko sunu réew ngay fekk suñuy ndaw daray diine du leen ñor caaxaan rekk leen di ñor mbokk yi mbalit yu tool nii ku ko mën a jël dugal ko ci am réew wallahi bugguloo réew mi ay ñoo xam ne àdduna bi ñépp xam nañ ñi baaxuñu jaaruñ ci mbaax jéemuñ ko ñooñu nga leen di jël di leen dugal cim réew mooy nanu yàq ndaw ñi nanu yàq xale yi nanu yàq ñépp ba pare bug koo jaaral ci culture bug koo jaaral ci musique mbokk yi jot na jullit ñi bàyyi xel seen borom diine kenn du ko foye wallaahi yow musicien bi koy def yow tëggkat bi koy def yow fecckat bi fecc tey sunu réew jigéen ñi lu ne ñeme nañ lu ne tiitatuñu dara dara dara léegi naw maayen mu ngi mel ni dee amatul kenn faaleetul dee ku nekk lu nekk sa xel mi ngay def tiitatoo ragalatoo jàjjiwoo mu mel ni bis du ñëw malakal mawti seet si la mu mel ni bis du ñëw ñu yóbbu la hôpital mu mel ni bis du ñëw nga jàkkaarloog malakal mawt waaye sa àdduna lan moo ci nekk disque d'or sa àdduna lan moo ci nekk naa tëgg Bercy sa àdduna lan moo fi nekk naa tas àdduna sa àdduna lan moo fi nekk mooy naa am turu àdduna mais allaaxira sama yoon allaaxira faale wu ma ci dara dara dara te wallaahi loolu lay tekki li muy tekki mooy yàlla faale lu ma la dara dara dara faale sa diine te li gën a doy waar ay jullit ñoo koy def te tey koo ci ne ragal yàlla mu ne dangaa tar dangaa tàng dangaa soxor mbokk yi maa ngi dénk sam bopp ñu ragalaat yàlla delluwaat ci yàlla réew kenn du ko foye ngëm kenn du ko foye pas-pas kenn du ko foye loolu moo tax borom bi taala ne ñu seytaane mën na lu ne kenn ku të kenn ku tax mooy alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla na ci bokk ñi gëm ba pare di wéeru ci yàlla ñooñu ñoo ta seytaane yàlla nañ ci bokk waaye mbokk yi nan lañ ciy bokkee nan lañuy ragalee seytaane di dugg ci bërëbam ku ragal dara doo ko xool ku ragal dara doo ko fekki waaye boo nee jullit laa du ñu dajeeg yow jàkka du ñu dajeeg yow jumaa duñ la fekk ngay tudd yàlla sa njullite ci tur la yem bis boo dee nag ñépp taxaw sëriñ si ñépp taalibe sëriñ diw la sëriñ diw moo ko jullee sëriñ diw moo ko suul sëriñ diw nee na ma nga àjjana wallaahi loolu la sunu réew gëm ay nit ñooy jël ay garanti ci ku dee ñoo koy jël mbokk yi même ñu dul jullit chrétiens yi doo ko dégg ñu def rus nañ ko juif yi doo ko dégg ñu def ko urus nañ waaye diw dee na sëriñam ñëw na waaw nee na nee na moo ko garanti waaw nangam nangam mbokk yi loolu sunu réew moo tax ñuy fooye bàkkaar yal na yàlla musal ñu yal na yàlla musal ñu wallahi mbokk yi bàkkaar du ndaw sahaaba yi musuñoo tuutil bàkkaar saalaba mii lii ko dal nii bu ñun du dara ñun du dara ñun waxuma sax yërndu de ñun dañuy ñëw xool xool xool ñun ñun du ñun suñu yoon mu mel ni ñun ay lan lañu amatuñu benn kersa ci yàlla amatuñu benn kerse ci diine amatuñu benn kerse ci lu ñuy wax waykat bi lu ko neex mu wax lu ñëw ci xelam mu wax lu mu yaakaar wax lu mu xalaat wax amul problème moom daal làmbi golo la mbokk subhaanallah ab réew buy dundee noonu naka la suñuy xale di jàngee mën a xam dara nan la ñuy jàngee nan nan lañuy ñuy jàngee réussir moo tax école yi am problème mbokk yi loolu moo tax borom bi ne ñi gëm yàlla seytaane mënalu leen dara ndax dañuy wéeru ci yàlla léegi nag borom bi nee na seytaane xam nga ñan la mën ñu ne ko yàlla kan la mu ne innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahum capable am ak dooleem moom seytaane mi ngi nekk te ña ko fekki waaw waaw ku ko fekki kay yaa ko ne yilif ma yaa dem ci dansin ba يا دم غرانت يا تر يا دم فتي يا تان بير يا فوي يا وياني إبليس يا اسم الكليفة لكن أبوك نيو إنك يا اسم الكليفة منك سك الكليفة كن لك بيا بوعك خمني يا دم بوك تي بارتم ميحيط بالشيطان يا تدم يا توب بكن يا توب أدنى يا توب فو موتا بورم بيننا إنما سلطانه على الذين يتولون كاتنا مك دولم ماغي جيم مينغو اك والذين هم به mushrikuun ak ña nga xam ni dañuy bokkaaleeg yàlla wal iyaadu billah ci bokkaaleeg yàlla